Nous avons beaucoup de problèmes ici. On nous exploite comme des esclaves. Les gens qui nous dirigent nous imposent n'importe quoi. On n'a même pas le droit de, dire quelques mots. On a marre de prendre des, décisions de lendemain comme ça, sans nous, sans nous avertir. Ils nous ont dit comme chaque jour doit verser 30 000, certains, certains 35 000 francs. Est-ce que tu sais comment on fait pour avoir les 30 000 francs On n'a pas de garage fixe. On n'a pas de régulateur qui nous charge nos voitures. On fait n'importe quoi pour avoir 30 000 francs, pour avoir prime 2 000 francs. On nous fixe les versements comme ça, sans, sans nous avertir. Ce qu'on réclame, qu'on nous respecte. On ne paye pas bien. On travaille plus வீட்டோட தான் On n'a pas de contrat, rien du tout. On peut te n'importe quand. Il y a des pères de famille, tu, te payes des loyers. Quoi de manger, ça reste quoi On veut que l'État nous aide. Ce qu'on veut, on augmente nos salaires. On nous donne des garages, on nous donne des régulateurs. Et nous, en conduisant, on coupe des tickets, on ouvre la porte, ferme la porte. C'est une seule personne qui fait ça, trois, trois travail. Un chauffeur qui t'apporte 600 000 francs ne peut pas, même pas avoir 100 000 francs. Si tu fais un accident de travail, on te coupe ça. Nous sommes man chef de garage bi. blanc yi Diagne moo ta janoog ñun ne ñu dafa am sart yi nga xam ne moo génn kii daw jaxaay kii daw apis da joxe trente-cinq mille amoo prime kii daw Sotrac national teen ba da joxe trente mille amoo prime soo ko mënul nga teg caabi mbootaay bi nga xam ne ñoo nekk suñ ginnaaw woo ñu ñu loolu ñoom mënuñ ko ration amu fi soo amee prime ci ngay génnee sa ration amboos amu fi contrat amu fi su fekkee jàdd nga yoon ñu jàpp la ticket dañ lay dàq sans liggéey lañ bëgg ñoom seen bopp ñu seet li nga xam ne yenu na maanaa ak dëgg ñu tegal ñu ko chauffeur mu def euh, benn faux pas rek nga jël caabeem dàq ko li loolu dafa yomb période bi kay suñ sañoon tey day gii ñu yokk ko état ci boppam na seet jeunesse bi wàcc ci terrain bi seet jeunesse bi li ñuy jonkanteel seet ñun li ñuy li ñuy jar banque bi ko yor ñun xamuñ banque kan la banque mosu taxaw ak chauffeur sax wax ak moom am na ñi nga xam ne nag dañ ne suñ suñ paree fii ñoom dañuy dem ci village yi jël yeneen booy indi leen ñu liggéey ñun fi ne nañ leen man koo doon benn lañ woon gestu leen ñu fu ngeen ñu woo nag ñu leen